<laughs> lu toll ci deux cent neuf milliards journal bi nag nee na loole lépp bu weesoo maanaam performance yu am solo yi nga xam ne régie financière bu duwaan def na ko loole nag daan nay tax mu am taux de boo xam ne toll na ci quatre-vingt-dix pour cent atum ren bi nag taux de croissance bi dina yokku maanaam dina jóge quatre virgule huit pour cent dem ba dix pour cent ci atum deux bi journal bi nag nee na la ko waral mooy nag ndorteel exploitation pétrole ak gaz bu Sénégal jéego yi nga xam ne duwaan def nañu ko loole tax na directeur général bu duwaan maanaam colonel Abdourahmane Dieye daan nañu koy jaajëfal félicité nañu ko ministre Moustapha Ba mi ñu dénk ministère des finances moo ko daal di félicité daal di koy jaajëfal waaye tamit jaajëfal mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci douane ci turu njiitu réew mi di président Macky Sall journal bi di réew mi quotidien nee na douane Sénégal jamono ji ma ngi def liggéey bu am solo Abdourahmane Dieye mooy directeur général bu douane journal bi daat na ñëw ci parcours am maanaam ci jaar-jaarama ba ci école nationale d'administration journal bi nee na lu ngeen ci xamula imaam la moom directeur général bu douane di Abdourahmane Dieye ci quartier bi nga xam ne la dëkk ci bàyyi mbiri douane ci élection présidentielle 2024 ak Youssou Ndour mi nga xam ne jamono ji kenn dégg ko mu wax maanaam Youssou Ndour dafa noppi kenn dégg ko ci lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall te nag benn at rek mën nañoo wax ne moo fi dese Macky Sall waaye nag Youssou Ndour mi mbaadu nag dafa bëgg a def ab duyoo moom ak Amadou Ba fii ak lu ne fi mën a am ci politique Sénégal ak élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmala yéen kaay gi de Le Quotidien yor yora xëy ne ci diwaanu Matam dañu fa bëgg amal ay fraude ay nju njaac wuti nag élection 2024 ndax lu toll ci deux mille état civil maanaam daan nañu koy délivrer ca diwaanu Matam lu toll si ñaari junni ci kayitu judd yoo xam ne jox nañu ko waa Matam yéenekaay gi nag nee na xel mi dafay teeye ci fraude boo xam ne dañu ko bëgg amal ca diwaanu Fuuta yéenekaay gi di la quotidien yor yor daal ci yokk na Serigne Bassirou Gueye ak conférence de bi nga xam ne defoon na ko dañu ko war a nag yóbbu ca conseil de discipline ndax dafa violé li nga xam ne mooy la ko ak train express régional bii nga xam ne ba léegi ñii ñoo ngi wax France ko moom ñii naan Sénégal ñoo ko mooma am na nag ñenn caskanu Sénégal mer nañ ba mar tali ñenn ñi sax nee nañu colonisation moderne moo am jamono ji te nag ñi nga xam ne ñooy gouvernement bu Sénégal ñoo war di wax dëgg daal di ak seenu askan journal bi di Sud Quotidien nee na en am ba desale coow li ci terre bi bëri na loola ndax nag lu jëm ci wàllum terre bi kan moo ko mooma gars yi ñoo ngi koy laam ma ngi def terre bi avant muy daw nag joxe nañu fi ay délai yoo xam ne gars yi ñu ko respecté yéen kaay gi di li quotidien xëy dañu xibaar naa ñu lu jëm ci wàllum bonne gouvernance Sénégal neuvième place la jël ci déndu Afrique yéen kaay gi di xëy dañu xibaar naan ñu Mamadou Diop mi nga xam ne moom la ñu faatoon ca place de l'Obélisque ba ñu ko faatee ak léegi tey la toll ci fukki at ak benn maanaam onze ans ba ñu faatee Mamadou Diop ca place de l'Obélisque ba ñu fay xeex ma la mal ko journal bi tuddee ndax nee na ginnaaw bi ñu ko dàqee ci parti bi di APR ñi nga xam ne ñooy opposition bi dañu ko dumooyu yéen a kaay gi de Les Échos xëy duñu xibaar naan fan yi nga xam ne moom la ñu génn Ousmane Sonko waa Pastef dañoo def mobilisation bu rëy ca Kër Masara waa APR ñoom tim bëgg nañoo tonto ndax waa APR ñoom tim ñoo ngi waajal meeting bu rëy ci diwaanu banlieue bu Ndakaaru ngir nag tontu mobilisation bi Ousmane Sonko waa Pastef defoon waaye nag journal bi nee na lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature bi en tout cas ñu bari ci askanu Sénégal dañoo ci limitation mandat maanaam def ñaari mandat dema lu toll ci quatre-vingt-cinq pour cent ci askanu Sénégal loolee la ñu d'accord yéen a kaay gi di waa Grand Place ñu xëy fekk fa Serigne Mansour Sy Djamil moom nag nee na àndul ci limitation mandat maanaam nekk fi naan waaw mandat yi deux mandat ku ne dem trois mandat ku ne dem Serigne Mansour Sy Djamil nee na àndu ci li mu ànd dal maanaam tànk askanu Sénégal ñoo ngi lay fal maanaam war ngaa mën a poser sa candidature loolee la Serigne Mansour Sy Djamil d'accord waaye nag lu toll ci quatre-vingt-cinq pour cent ci askanu Sénégal ñoom li ñu d'accord mooy def ñaari mandat dama yéen a kaay gi di Vox Populi xëy fekk fa Serigne moom Serigne Abba Sall moom nag ma ngi sàkko ci président Macky Sall ngir mu bañ a jéem ñetteelu mandat maanaam ñetteelu candidature Macky Sall bañ koo jéema loole la Serigne Abdallah Sall moom Serigne Abba Sall di sàkko ci président Macky Sall yéen a kaay gi di Source A nee na Cheikh Yérim ko fa mbaxana doonee benn ci tribunalum Ndakaaru tey ji ñi nga xamante ni nag ñooy waa CICES ñoo ko yóbbu fa mbaxana doonee benn ndax nag ci foire internationale de Dakar Cheikh Yérim Seck ak société bi ñoom dañu faa loué woon ay stand nag li ñu koy toppee daal mooy loué stand ba pare a fay yéen kaay gi di réew mi quotidien les échos ak l'info nee na ñi nga xam ne ñooy rappeurs yi démb janoon nañu ak taskatu xabaar yi nee nañu nag li ñuy sàkko mooy rappeur bii di Nit Doff ñu bàyyi ko ci ni mu gën a gaawee ndax ñoom dañoo gis ne acharnement la état bu Sénégal di def ci kaw Nit Doff malal tàll maanaam fu malaat moom nag nee na nguuru Macky Sall gi ñoom dañoo bëgg a tënk askanu Sénégal ba duñu wax seen xalaat te nag loolee munta nekk te xam ne moom la ñu toppee Nit kenn si moo ci biir nga xam ne Nit ko ne wax nañ lu ko gën a doy waar fuuf te dara fekku leen ci Khalifa Ababacar Sall ca diiwaanu Italie nee na daal danañu jàkkaarloo ak Macky Sall danañu résis yéen a kaay gi di réew ko di cee Birahim Seck ma ngi fàttali gouvernement bu Amadou Ba ngir nag lu jëm ci rapportu Cour des comptes bi nga xam ne def nañu ko ci xaalisu Covid 19 bi ak ñi nga xam ne ñoom la ñu épinglé maanaam li ñuy xaara mooy ay daan yoo xam ne dinañu ko jël lal ko ci seenu ndodd ñi nga xam ne jort nañu ne dañoo def ay luubala ndax ay surfacturation la ñu wax ne moom moo nekk ci biir rapport bi yéen a kaay gi nag nee